Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saddaqna syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sunu bokki ñu ngi kontaan di len nuyu. Ang len di ziar di wax vraiment gis nañu sen ay réaction le format qu'on a adopté depuis deux jours ou trois tey mooy nekk le vidéo bien de di proposer fi Pass TV Sénégal ñoo Sénégal ñoo N'ak, nag site internet Bo xam ni euh, am na ñoo xam ci jamono defoon nañ fi benn euh, pré-casting pour hall, ñu ci mën idem pour la télé idem pour la radio et SNF Radio aussi donc ngeen ñaanal ñu rek ñu ngi euh, on veut on veut entreprendre on veut entreprendre pourquoi on veut entreprendre parce que xam nañ ne que Sénégal dëkk la bu nekk ci chantier boo xam ne ñëpp entreprendre ñëpp a war a jóg dara bu kii la ci des ñu échange am le troc mën dox l'économie nationale mën fonctionner le produit intérieur intérieur brut mën fonctionner tay dafa nek bis bu mag dafa nek bis bu maga maga maga maga maga maga maga maga maga maga maga a mag a mag a mag sax may sori damay wax ñi nga xam ñoo ñu seetaan par rapport à des critiques assez objectives et vraiment qui nous rapportent énormément ñu djéggelu ci qualité vidéo bi nga xamni ne jox nañ leen ko euh nit matul ñun dañuy dañuy sonn dañuy dañuy ci parfois c'est un peu difficile mais dañuy jëm ngeen ñu rectifier di corriger ñuy améliorer wu di leen ci bu baax baax baax ndax loolu day def consultance la fay képp def normalement bu bu bu marché dëgg dañ la fekk fa nga la ñëpp di technicien président dana xam boppam démb gari sa waay daal sa tur bi la dégg na ma mi yow foo xamee gari lay na kër yàgg nga ma ne ko sob rek doon xale doon xool yàgg xool football euh, ñi nga xam ne xam na nañu coupe du monde 82 xam na ni le meilleur buteur il s'appelait Paolo Rossi euh, naka noonu ñeneen ñi nga xam ni daan nañ ci fàttaliku am na tour yoo xam ne bu ma ko waxee tey sama papa yeeg sama mag yeeg sama kilifa yi daanu ree ba sonn karl Euh, bu waxe waxee Franz Beckenbauer sax ça c'est la légende mais mën naa wax euh, Rubes mamu défenseur allemand wax euh, wax karl Foster bu Olympique de Marseille Marseille bobu nga xamni tay def na jaloore bu toll ni àdduna qualifié sama club bobu nga xamni c'est le seul club que j'adore en France dama ko bëgg sama bir xol ndax ci tax ma bëgg Olympique de Marseille mu ngi tuddu Abdoulaye Diallo dan football fële ca ñaay ñi xam ñaay bu njëkk xamni équipe bu mak la woon Abdoulaye Diallo boobu lañu ñu motax ñu bëggoon Olympique de Marseille lolu topp na Marseille bobu nga xamni tay def na jaloore ak sénégalais yi ne Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr qui nous avait beaucoup manqué ci match aller bi ak ñooñu ak ñooñu ñu ñi mel euh, Benfica bobu nak nga xamni ci histoire en 1990 defon na lu metti Olympique de Marseille benn but bu absurde la main de Bata Bata ou Vata, je me rappelle plus. La mère de Vata, Vata ou Bata. Je pense que voilà ni ni xam football ci jamono dañu xam dañu xam li wax. parenthèse la rek pour wax euh dafa am lu ñuy pousser à vouloir entreprendre Moy gis ne suñu dëkk dafa am ay opportunités Dañu am dëkk bo xamni richissime Yalla jagleel nu lu né kasi si nekk war a dara lo xamni da ci mëna sauvegarder sa dignité vous êtes nombreux en tout cas à nous suivre depuis trois jours euh, comme on, vous l'a promis on va essayer en tout cas tous les jours de vous faire euh, l'exposer sur un sujet précis de façon synthétique en termes de ramassis et puis vous le proposez vous apprécier que M. baax wax au fur et à mesure yéen dal yéen ñuy encadrer yéen a ñuy won yéen a ñuy jangal gannaaw bu leen ta tagal leen nuyu leen bu baax ak wekk fonk bëgg pas-pas ak naw dañ leen di wax ne tey date bu importante la ci Sénégal oui le 18 avril est une très très très grande date <laughs> bu ma ko waxee nii peut-être ñenn ñi dinañ ne ah bon ñu ne leen oui le 18 avril de l'année dernière le 18 avril 2023 heure à 22 h le yi dem bureau impôt et domaine fekki l'administrateur le haut cadre de la fonction publique sénégalaise Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaay ko au-delà. des horaires normaux yi permettre loi mu ñëw jël nit 22 deux heures passées ñëw ne dañ koy forcer jaay ko doole yobbu ko maa ngi fàttaliku en image Abbas Fall ak ñu mu àndaloon ñu ñu ak maître tal bu Pastef ñu ci addu di wax ne du dëgg du yoon jaay doole bi président Macky Sall di jaay doole bi Macky Sall di jaay doole ci dëkk bi Macky c'est fini Macky dem na gis ngeen yalla ay yàlla allahu rabbana c'est Sylvain Sylvain dama faa yàlla ma faa yàlla ah gari yow faawoo yàlla yow yàlla ay sëñ bi ay ci putum buur xam nga ni ñi fi nekkoon di jaay doole ku leen ne woon kii ngeen di jaay doole heure bii ci benn post Facebook post Facebook ña ña maanaam ña mu doon waxal ca post baak Facebook baak nguur gi fi nekkoon ak ñooñu ñëpp tey kooku ngeen doon jaay doole tey mooy seen kilifa mu neex leen mu naqari leen ngeen bëgg ngeen bañ moo tax nit lépp loo di seq moom na rafet ëllëg a tax au delà de sax ëllëg yëfi nit rek xamni ki nga jàkkaar lool diko tek teg ak loolu amana yalla def na mo la gën ci borom bi amana li la dimbali pour nga dugg aljana euleuk ci mom lay jaar kon nu ñu yéenante lu baax lu rafet di dox ci deug le 18 avril 2023 le 18 avril 2024 tay koku ñu doon fekk ci bureau impôt domaine diko jël di yobbu un an après moy genn prison ba sur dix jours une campagne précipitée mais bon ramener existe existé ci lu non, non, ak et bi bu dal ci kaw partant de l'adresse qui était destinée à Ousmane Sonko bi nga monsieur Mambay dossier le concernant la lay pour bañ candidat fu ñu doon waxee rapport am na am nam am nangam ak nangam rapport ak pré rapport ñu weddi weddi sonal nit ñi faat ci ay nit laagloo ci ay nit gaañ ci ay nit indi ci coow bu dul deex ñëwaat tay naan rapport am na aqulaay taala voilà le pays voilà le Sénégal motax la date du 18 avril est à noter et à relever elle est symbolique pourquoi parce que 1 hmm, plus 8 égale 9 cela a un sens ce 18 avril bee 2023, ko téyewoon te 2023 yóbbu ko làq jant bi non ndekete un an après 18 avril daf kaa fekk Mauritanie Moutok, ak Mohamed Ould Cheikh Gazouani, ñu talal ka tatagal ka avec tous les honneurs Moutok, toog waxtaan ak mom. bu fa jógee samedi qu'il y a dem seeti Adama Barrow inshallah. allah gis ngeen yàlla gis ngeen sunu borom moo tax sunu borom faw faw nuy sóor suñu boroom nag dafa bokk ci mbiri moo de baaxal de si moo amee affaire yi ah, carte gi de yàlla moo yore mbir yi tey kooku mooy doxal ci kàttan suñu boroom aaway ah, ban situation la fi fekk nag dégg ngeen conseil de ministres biñ fi waxtaane démb au bout de 15 jours de magistrature suprême, mu déroulé. En attendant la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui certainement fera étalage de l'ensemble des programmes et stratégies à mettre en place pour la composition de ce qu'ils ont appelé le projet. Ahmed Babou di projet moo ensemble de programme ci déclaration de politique générale ba daanu xam réellement projet bi nan la tëddee lan moko ko wund waaye man am ma si dégg-dégg boo de bu dee boo xam ne moo les préceptes et fondamentaux yi tax état existé projet boobu nuy wax duko ko la rupture sincère par rapport à l'inélégance par rapport à l'irrévérence la rupture sincère par rapport au mal intentionné la rupture sincère par rapport au véreux la rupture sincère par rapport aux escrocs grands bandits d'État la rupture sincère par rapport à l'administration corrompue la rupture sincère par rapport à la corruption en général, la rupture sincère par rapport à l'endettement de folie, la rupture sincère par rapport aux résolutions des problèmes à prendre en compte très sérieusement. La rupture sincère par rapport à l'incongruité en général. Dans nous ma un exemple ci problème yi ñu résoudre conseil des ministres dégg nañ mais parlons de la dette en général. Le Sénégal est à plus de 15 000 milliards de dettes, Où serait à plus de 15 000 milliards de dettes. Le taux de 70% nous permettront à un certain niveau dépasser Nanouk. Nous, le Sénégal, certes, c'est notation bi nga xam ni la institution Afrique et autres, pour apprécier ndax dañ ou pas dépassé nañu la limite mais au-delà de tout le Sénégal reste un pays crédible